Euh, jege na lool waajtaay moom daanaka xaw na caa weesu fi mu ne kay fiñ ci toll mooy dalal ko yàlla na agsi ak jàmm te fekk fi ci jàmm dañu tal ko ñu xam ne nag euh, ci doxinu jamono kenn ku nekk wala ñe danañu soxla wala bu dee kenn dana soxla su kër këree ci ay liggéeyam ab diir mu jël ñaar ba ñetti fan ñenn ñi fukki fan ak juróom ñenn ñi weer woo xam ne duñ xëy duñ soo waxee ñu ne dañuy dallu liggéeykat bu nekk danañ ko ko faral di jox ñaare fa muy liggéeyee eh, bu dee ay machines it yuy dox léeg léegi ñu taxawal machine yépp fu ca jar fomp ñu fomp ko jar di defaat diw ñu diwaat ko ngir bu tàmbaleewaatee ab liggéey gën koo man ca na mu ko daan defe loolu nag su ko nit soxla aw nit soxla ko ay machine soxla ko yi nit di liggéeyee roo gi nga xam ne mooy nekk ci nit tax ñu naan mi ngi dund moo ko gën a soxla te lii dundal ruux du fa bàyyi aw yaram lii dundal ruux nag mooy wéet ne teg di xalaat ci yàlla subhanahu wa taala euh, loolu moo koy dundal li koy suuxat di cër yi nga xam ne ñooy kër kër yi di jaamu yàlla yàlla na nu ko yàlla yombalal su dee ruu nag ruux bu ñu ko tuddee ne mooy dox nit di dund du dem bàyyi fa jikko du dem bàyyi fa bakkan bi nga xam ne mooy yëg lu neex ak lu naqari ñooñu nag seen waxtu wiñ naan teg bu dee liy dundal aw yaram mooy lekk ak naan lii dundal ruux di xalaat yàlla ak luy tax a gën a jege yàlla kenn ku ne xam na ni weeru koor làmboo na yooyu yépp ndax la tax mu làmboo ko mooy eh, ñi seen ruu doon dund ñi seen pas-pas di dund moo tax ñu di ko wax ñoo ñoo feete kaw su dee ñi nga xam ne nag jàpp nañ ne ak dund moom yaram kese kese la képp lekk naan nelaw jóg sangu solu mu xam ne it weer wu ñuy aw yaram di ko ca jàngal bu dee xamoon na ñu fàttali ko su xamagutoon mu xamal ko waxtu daara jooju mi ngi bëgg a ubbi muy weeru koor daara la ci yeesal pas-pasu gëm yàlla ndax bi muy wax di gàllu ci suñ kaw woor weeru koor dafa woote ku ñu woo ci aw turam nag ñaare dana wuyu bu fekkee ak déggam neex na bu ak dëggam neexut it ñi xam ne moom la ñuy woo mën na yow la ñuy woo mu wuyu ñaar yépp munta ñàkk a daje ci ku ñuy woo dafa wax ne yéen ñi gëm yàlla gëm yàlla nag du turu kese kese wala carte de membre wooy jënd rek su la neexee tënku ci sart ya wala bu la neexee bañ caa tënku ndax loo xas ba jënd yaa ko membre yaa moom waaye gëm yàlla moom ñi tax yàlla di ko wax mooy ñi nga xam ñi ngi dund pas-pas ba ñépp walbatiku ku ko woote woon dana bari ñu wuyu waaye lay tege ca woote ba nag ca ngay xàmmee ñi seen pas-pas di dund taxoon koy woote xam ne seen pas-pas daa wéradi daa loof dana làcc mënatu dara ñooñu moom bu ndigal jógee desi dem wàcc leen fa euh, ñooñu nag la gàll ci seen kaw woor weeru koor ana la ci daara ji ñuy jànge pas-pas mooy xam ne fu nit nekk yàlla nga fa nekk ak moom maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa maahum aynama kaanu su ko defee nag bu nit ki duggee ci ab barab fasandoo woon koor ni ñépp biig du biig sax dama ko waxe noonu rek ci guddi gi mu xëy bagaas jumtuwaayam daan defare ndékk yépp ya moom képp mu nekk fa Le pas-pas buy dund di wane moy yow kat yaa ngi nii yaa fi nek waaye yalla ngi lay gis te mo digle won bi nga nang won mo woote won bi nga wuy fofu ana lu fay ses moy defar jikko di jom te kirus sa bu gisut ñamirus wala lamuy ñamirus ak wala fam koy rus rek man nako def way ki jom fu meuna nek day andak ak dugg ci jombu du ko dukota def du ko tee bàyyi du ko bàyyi kon daara la juy jàngale di yees nu ñuy nu ñuy jikko ak nu def ra bakkan ya ayuha nafsul mutmainna nafsul mutmainna fala ab jullit war a dox jëm su ci ab su ko su ko ab ab jullit dee nafsul nafsul mutmainna saa bu demee war ko yàlla day woo ruugi naa ko irjii ila rabbik radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati yàlla boole waaye am na it lu ñuy wax nafsul ammaaratu bi suu an nafsul ammaaratu bi ammaaratu bi suu inna nafsa la ammaaratu waaye ki am nafsul mutmainna mooy koo xam ne bu lu mel ni weeru koor ñëwee doon daara ju ñuy yeesale pas-pas ak di ci defar jikko jullit bi day gaaw moom rek dugg ca dara cay potoxlu defar yàlla na nu ko yàlla defal ku daan bakkanam ku léewtoo bakkanam ba daan ko wun na ko wóone li mu bëgg dana ko am waaye su fekkee fu bakkanam jëm mu jëm fa fa mu gën a yombee fa mu gën a sedde fa mu gën a neexe kooku bakkanam bi ngi am ci moom li mu bëgg te su boobaa musiba rek la koy jëloo ndax an naf inna nafsa nafsul amara bi suu fa muy jëmale nit jaaral ne ko yoonu sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne euh, yoon yi jëm aljana yépp yu metti kese moo ko wër moo na ci pegg yi moo na ci digg bi dangay jégg yii di toppale yi waaye yoon yi jëm sawara yépp lu neex lu yomb kese moo na ci yoon wi dara du la dogale day melni ne bo beureng ci mbartal rek ci mbar ci mbartal rawati nak muy ab tek loxo mu dem tek loxo tegul loxo bobé bu rëccee loxo ñako yoron man na dugg fo xam du len neex misal mu yamba xam la motax bu waru kor jupsé xol yi dund yépp ñi am pas-pas bu wër ñépp dañ ko yakamti xamne lu leen tëwoon mën na leen a yomb lu leen jafe woon mën na leen a jege léegi lu sore woon mën naa jege lu jafe woon mën naa yomb kon kenn ku nekk na seetaat boppam nii muy séentoo weer wi nga xam ne fan yu néew dinañ ci dugg ku ne mën naa xam boppam yàlla na nu ci yàlla dimbale ba ñu mën koo jooxe ni ko suñu borom santaane bari na baat yu koy bari na lu muy tekki dama woor moom buñ démé ci alcorane dañuy fekk mu ñu nett li sayyidatuna maryam alayha salam bam xeyé xëy def lu kenn musta def muy soxna su yewiku te musta am borom kër musta am sax ku koy bëgg far jaaxaloon na ñépp ñu ne loolu nu mën a amee yam àndal yépp ànd ca waaye yàlla da ko ne ku def lu kenn musta def da nga dañ la mbamb lu ñu musta mbamb kenn waaye yow lu coow li bari bari lëkkaloo ko dara waaye ñi jàkkaarloog yow ku wax ak yow nee ko inni nadartu rahmaani sawma ne leen tey damaa woor koor googee mooy du ma wax kenn tey li ma fas yéene mooy du ma wax koor gi ñuy waxtaane nag mooy koor gi nga xam ne nit ki day jàpp am na ñoo xam ne dañoo desee dégg baat bi naan jàpp jot na am na jàkk yu koy wax te fekk jàpp la ñuy wax al imsaaku téye sa bopp ci lépp luy dog koor luy dog koor gi ñuy waxtaane la ca gën a fees mooy lekk ak naan ci bëccëg bi ak giñ la mayoon ci bëccëgu weeru koor ci ña ngi ko war a siqal ñu tënkat ca na muy gën a rafete ay bët ay gët làmmiñ nopp loxo ak tànk bu mu dox jëm fu mu warta jëm bu mu laal lu mu warta dégg bu mu wax lu mu warta wax su doxee ba agsi foofu jàpp na ne fi ñu war a jëm la ñu tàmbali faa wax lu bokkute la mu fa war a dégg na dem gaaw su leen mënta noppi la kon koor gi ñu waxtaane mooy koor gi nga xam ne nit day tàmbali bu fajar feqee ba fa jant bi sooyee du lekk du naan du def yow yooyu ma wax loolu nag waroom xam-xam yi kenn wérante wut ne farata ci ab jullit kuy tudd ab jullit ku nekk la muy lay ba génn ca am na nu ko sharia di nangoo waaye baneexu kese kese kepp du tax te bokk yi dañuy woyefal yu diis gis nga santaane bi yàlla ku ko bañ a jëfee itam yàlla du la wax dara fii amut ci soxla ndax xam na ne wiiri wiiri bañ ko daan wax ci bukki faw mu jaara jëfa lu mu mën a wër day mujj ñëw fa mu dëkk rek du tax yàlla jëflanteeg moom fii lu koy wane ne da ngaa bañ sama santaane du ko ko wan du ko ko wax ba mu ko santaane la ci génnoon ku def gis nag tam ku tam kuy gis nag tàmbalee gis li muy jariñ waaye pay ga moom fa waajee réccoo lu teewoon mu def ko amatul njariñ réccoo amatul njariñ moo tax wolof sax lépp na ko nee na sàcc bu dul raw jërul yàq ay nelaw jërul yàq nelaw kii duggoon ci ak kër di sàcc yanu la mu bëgg a yanu lépp ba mënatut a yenu mu ŋàbb boq taaw leew loolu jafe na kenn ni mu boole leen waaye nu ñuy fexee ba yor daal def na ko bi muy dem nag daa romb kuur yi ci walla wallandoo yi ak tuq yi kuur yi taxaw euh, kuur yi tëdd tuq ya gënn ya taxaw mu wàññiku romb fa gisaatul kuur ya mu ne asalaamaaleykum ñépp na càll mu ne maa ngi nii maa jël maa sàcc xam naa ne kuur yii moom jëlewuñu fi seen bopp dañ leen fay jële kon damay teel a wax sama bopp maa ngi nii maa yor li ma doon sàcc maa ko yor mi ngi nii taxaw ñooña dirutoon seen nelaw di yàqu xam nañ ne li fekk génn ñu waaye ji dem ndax xamul fu ko kuur dale atte suñu borom bi nag yëmut ak dara waaye noonu lay noonu lay mel xam na ne moom kenn mënu ko teggi gisee ni la ko gisee duxul jëm ci santaane suñu borom bi moo wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ci ku ko man ku dib julit di mukallaf amna nañ nattukaay waaye nee nañ nattukaay yooyu su dajewut ci nit ki ndax yàlla mo bind wutale takk bi tek sa su nek su xasse ba am fukki at ak juróom-ñett mom sharia gal nako lim galon bayam ak ndayam bu dee julit am fukki at ak juróom-ñett wér wér nak niñ koy xamé bokku na ci loolu neex lek te du la wàññi dara fu la neex dem doo yor bant doo làmbatu doonte des na yor bant di làmbatu te du tee wér waaye daal fu mu bëgg a dem mën na faa dem lu lu ko neex lekk lu ko neex naan te waaye léegi te nga gis bu koor gi ñëwee kenn ku nekk di jàmbat lu koy metti loo xam ne la muy bëgg ku ko wax rek mooy lii moom mënta ànd ak koor waaye su boobaa it naxut kenn boppam lay nax ndax kenn wóoralut kenn ginnaaw ci koor gi la ñuy wax la aaya ba laallakum ndax ñu xàmmee ci yéen ki pas-pasam di dund muy yëg na fu mu yàlla nga tolloog moom ak ki ko yëgut euh, yàlla nañu ràññee ci groupe booba ci kuréel booba mu ne nag ku sart yi daje ci moom ba mu war ko rawatina ca mu nekk ci dëkk bi mu dëkk su dee tukki it wàccagu ko waaye may nañ ko coono yi tukki àndal mu dog ba dikk ayyaman maadudaat fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar kon yaxub alquran bu leer bu ànd ak détail sax daf cee am lu néew ci lu alquran di digle le détail waala ca ñu ne ndax ki dëkk Sénégal dong la war mu ne fu mu leen mën a fekk ngeen di dund fa man shahida minkum ash shahra dund rek ak fa mané ci kaw soufsi bu fekké suufu yàlla si la bu fekké suufu yàlla si nga nekk fu la mëna fekk da ngay dund mom mi ngi gàllu ci saw loof di la xaar waye ku dem ci wax yoonenti bi ci tëggin yu wuté yi ak riwaayaat yu wuté yëpp yoonenti bi sallallahu alayhi yax bi ñëpp ko bokk daaray diine yëpp daaray lislaam yëpp ko bokk la buniyal islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت كان ورنتوجي بمي سوق واتنك أه، سيدنا طلحة بن عبيد الله نانا أمنا واجل جننتي بصلى الله عليه وسلم أنك واو gan كورغيوه نحكم كتب على الله من قبلكم am nañu daan woor di woor woor benn woor yi benn fan mu ne shahru ramadaan laa wax lépp lépp weer wépp mu ne ko bu ñu waree nag mu ne ko bu ñu waree ba ci ginnaaw suba suba la neexee umaat waaye weer wi la yàlla gàll kon kenn werantewut wut ne weeru koor bokk ku xëy xëy dindi ko teg nee te tegu fa lenn ngantu sariyaalum nangu dañ koy dugal ci atteb ku xëy xëy na julli bokkatul ci l'islam benn la yàlla nañu yàlla musal ci loolu ni ngi jot nag ci taafeer weeru koor bu ñu ñëpp mooy bu barax lu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu xool ko ci sow bi gis ko taafeer benn ñaareel ba it xool nañ ko xool gisuñu ko ñu mottali fanweer bu fanweeri mu matee moom ca jant ba bu soowee moom dugg na ku dub jullit ci sart yooyu ñu waxoon ak yu bari yuñ tuddut weeru koor gàllu ci kawam bor bu ko war la su ko wóorut ba faw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dog ci weeru benn bis ci ràññee moom tey ko amul ngant lu sharia nangu su wooroon su dundoon ñaar téeméeri at woor léppit du tax mu dab bis boobu ndax wéy na te moo ko moo ko ci jublu xam na ko waaye ak payam a ngi koy xaar ñu ne loolu nag ba bàyyiwut nit mu dem noonu rek ñàkk yaakaar ne ginnaaw du mën a woor adduna li ci du ma du ma du ko mën a fay na ci génn mu ne suñu woree na woor yaari weer yu tegale yoo xam ne saa boo dogee benn bis day tàmbaliwaat lu metti la loolu luñ ko teg fii rek la waye ëllëg yàlla ko woné koor moko mom mom ak pay koor yàlla tëgg ci loxof kenn newut nangam la ci lañ ci am waye dane mom moko mom te mokoy fayal bopam as-siyamu li wa ana ajzi bi kan mokoy gis nak wala ñan ñoko gis borom xam-xam yi nañ donte kenn nit moko gis ku maandu waye ku maandu nu koy xamé ak jafé xam am nañu wax ne mooy koo xam ne musuñ ko xamuñ ko ci caaxaan am nañu ne gisuñ ko mu koy def ñii ne gisuñ dégguñ ko mu koy wax waaye ku maandu yomb naa natt lool ci suñ jamono ku kër kër yi ba sonn ba dajalaatu lu ne mu daj ko ba am ab million am lu mu ci séentu fee juróom benn weer ka xelam di daj mu di ko ca yaakaar di nangu ko koo dénk koko man lañ ko tuddee ko maandu ki nit mën a alal ju bari jum sonn lol do ta am door ta jot nit la wax waxuma bank yi nit nit ku mën a alalam bu bari wala kayit ay titre foncier yu bari wala auto yu bari koko de mom man sa japp nek ci nattam mom ku maandu la ko xamne su ko nek gis na wéré man orna ko alalam waye wuru ki sa diine sa kóoluteeg moom aggu ci di ko dénk alal kooku bu ne laa bu ne kooku maanu ne war na ko seetal ba xam kon koor néewuñ na ko nit ñi defandoo déedéet lu jafe woorandoo lu jafe la fii ñu toog man xàmmeewu mooy ku woor fi mu ne nii ak ku wóorul ñi may seen nii xàmmeewu ci ku woor ak ku wóorul kon nañuy woorandoo moom mat naa seetaan ba xam xam-xam naa am déet nañuy julleendoo xamees na ko ñëpp bokk wenn melokaan wu ñu koy defe nañ xaale wuñ ko benn béréb sax lañ koy defee faam xanaa kon bu ñu doon mën a warandoo di génneendoo asaka ndax ñenn ñi kenn tàmbalut ak moroom fu muy waxtu muy liggéey ak waxtu mi dañ ci alal kenn ku nekk may woor kenn ku nekk la yàlla di nattal kenn ku nekk la yàlla di fay nañu ko séentu nag suñu kem kàttan te teg ay nattukaay yu wóor ci ñi ñuy wóolu ba buñ nee gis nañ ko ñu ne ay ca séentu lañ wax lu yomb la ba ko yonent bi jàngale kenn gënu koo xam nit ñi kenn gënu koo dégg diine dane su saabaan barax lu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent daal nañ ñépp bala ñu jublu sow adduna bépp ñoo bokkule sow bi la bu ñu jullee lañ mën a wutale waaye sow moom fi jant bi fenk ak fi muy sooy benn la nañ dëgmal sow xool ku munta giset na dem fañ koy séentoo ndax ñépp mënuñoo maase juum ci ne te doon dëgg waaye kenn kenn ku ko gis moom képp te mënu ko wan kenn it moom na xam ne wa jël na responsabilité am suñ tëdd añ suba wala muy de waxuma ndékki sax suñu ko waxuma laa di añ waaye bu doyee ñépp day doy loolu lu mat xam la euh, yàlla na nu yàlla dimbali ba ñu dugg ci si jàmm dangay dégg ñi nga xam ne seen pas-pas laa xaw a def ñaan yàlla nañ ko yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm kooku daa yàkkam waaye yàlla nañ ci dugg ci jàmm tam ànd ko wér akuk tal tañ àggale ko ci jàmm te tasa seeg suñu euh, ci yii di ñëw danañu wax ay farataam yi ci mënta ñàkk ak ay aadaabam ak yiñ ci sib ak yi koy yàq ñun wala ñeneen ñi nga xam ñooy jëkk a di def li ñuy tudde ay bayaam danañ ci dikk nu mu gën a yaatoo li ñuy fas yéene daal mooy kenn du dem ba koor gi jeex di ñëwaat déwén te du ci xam lu mu ci war a jàpp ñu xamlewaat na nag du aada ak jaamu yàlla la bari ñoo xam ne dañu naan man bara sàngam laa daa woore ji bokk yi fu nit meuna a julle rek mën na faa woxore ndax alquran dane fa man shahida fu fu mu fekk nit rek rik buñ ci dugal aada ndax suñ koy def ngir aada do mën ta fay kan donte amna na yo xamné bi diina ñëw da ko fe bàyyi yu bari la waye nak lo xamné ab yakh daf caa feeñ yax booba dañ nan ñuk ñu aada nak jàpp ko mom yakhum alquran yaxub waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu warom xam-xam yépp juboo kenn wutewu ci ak moroomam mooy daray aadamaam anuta koor gi jaamu yàlla gu kon ku dese woon ñaari fan ak ñetti fan ba ñeent yu mu war a fay yu mu amoon daaw na gaaw ndax bor warta am rak yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimina amin